ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅಜ್ಜರಾಜ alaaji Fallu Mbakke ba alaaji Baara Mbakke Sëñ Fallu ba alaaji Takko birame mi la la la xalifa sëriñ Baara Mbacke borom kàddu gi kàddu gi bàyyi Seex Sëriñ Muxtaar Mbacke borom kër ngeen sëriñ Moussa yi moom sëriñ Baara Mbacke jërëjëf birame birame birame birame birame birame mi la la la sa Omar la Mbacke sa Modou Omar la Mbacke sëriñ Fall sa jëy maam Cerno borom Daara Muxti maam sa Modou Kara Mbacke jërëjëf birame mi la la la wala mbay tey ma xam jërëjëf wala yataluna wala ya tabasa اليوم بغوريا باغوا Mam say jay sur mam say jay batim ben day say jay mam say rama bal lamp dame Isaa Fall Serigne Cheikh Fall Baye bu góor Serigne Cheikh Touba Sam Fall borom Sam Fall jira jam akasa akasa barke borom Touba ndak xale ko dajee demal dajee bu ñëw bu demal dee jaraw demal samba yaay fal kuy bay fal jugal màggal maam si Ibrahima Fall maam si Modou Fall Fall jërëjëf sëriñ Cheikh Ndigal Fall borom Sampal Jirajab. waaw wàllu Kabakou Mbal. Cheikh Moussa Sama Fall sëriñ Cheikh Ngounda Fall Jirajab. Sukoro waay. sëriñ Cheikh Fall Baye Gour borom Touba Fall Jirajab. laaj la ne mbiru bi bi nga yan saako. Saliou Mbacké borom jàmm yërmande jërëjëf yaa muxtaar Cheikh ku sopp Cheikh Issa lagan bamba ko ni dema Cheikh Issa dem bala gan sun Bamba ñu xewal yi baawaan baawaan baawaan baawaan yaa muxtaaru nabi xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall du mooy lamp waaw xalifa Serigne Cheikh Fall Baye Góor mi du mooy lamp waaw Amar Fall Seer Ndiaye biram jëboo nga càngaay bay naaru déggeen Fall ku samp Cheikh Ibra Lo ku bëgg Cheikh Ibra Lo fi bay Fall juugee la màggale Cheikh ku bëgg Cheikh Ibra Lo li daa mooy maam say بركة بتجوجر وعليك سلام ماما البيبي كأترا أخوان خراته إلا لا أيسمني الله عند الجاول إبليس إذ ناديته بيا ولي السلام عليكم wa الله تعالى وبركاته jërëjëf Serigne Touba alhamdulilahi rabbil alamin sant suñu borom ginnaaw bi ñu mayaate ñu fekkee weeru tedd yi nga xam ne moo di weeru safar safar di weeru yi nga xam ne moo ëmb bis bu màgg boobu nga xam ne moo di màggal tubaa fukki fan ak juróom-ñett si weeru safar ngir jëm si waajtaay wi nag mboolem seeni activité safar yi nga xam ne di ngeen ko amal seeni i daara ak seen dayra ak mboolem safar yi nga xam ne di ngeen ko amal seeni gox ak seeni i gox-goxaan seen seen YouTube Tawfekh Production di leen si gunge lépp jëm si waajtaayub màggal ak Tuubaa gi nga xam ne moom la ñu dëgmal moo xam ay reportage couverture médiatique ak mboolem activité yi nga xam ne moom ngeen def yépp Tawfekh Production nee leen si gunge ngir ànd ak yéen nu mu gën a muccee ayib ku si gën a bëgg ay leeral nag mën ngaa woote si numéro yi 77 251 04 05 77 251 04 05 Tawfekh Production moo leen di ñaanal màggal Touba ak jàmm di ñaanal Serigne Touba Serigne Mountakha Bassirou mu yàgg fi lool te ànd ak wér fi safina bi annani xadimu zil madina